Macky Sall teg na ko pour les primo-votants mhm. nekk na mbir boo xam ne aussi indi na ay euh, polémique balaa ñuy ñëw euh, si problème de délivrance du certificat de résidence yi nga xam ne dafay indi aussi polémique ñu wax par rapport ak primo-votant bi mhm. nga xam ne ak date bi nga xam ne président Macky Sall euh, fixé na ko 45 jours mhm. ñu bëri jàpp ne président Macky Sall dafa verrouiller vote yi nga xam ne les primo-votants mu nekk les jeunes parce que dafa jàpp ne voilà quoi ñeneen ñi Sonko la ñu àndal. <laughs> non non non au contraire <laughs> est-ce que le piège aussi. non non au contraire ñun tey suñu doon analyser. Mm-hmm. tendance primo-votant. Mm-hmm. ñun légalement dañuy jàpp ne primo-votant yi ñun la ñuy votal. ah bon si vous pensez que la <laughs> élection législative démb maa ngi dégg sama camarade Karim foofu na di ko wax. mais mais muy dëgg élection législative 2017 on a gagné avec 49 pour cent mais 2000. présidentielle bu on est allé jusqu'à pour cent su ma neexee en tout cas scientifiquement. ma jàpp ne mais valable woon 2017. valable woon si présidentielle yi ñu passé. ak événement mars dernier yi nga xam ne gis ngeen jeunes yi lu ñu leen wan ba yëngal ba le président de la république. Euh, Macky Sall. Euh, génn ne carrément je vous ai compris. def sax ay euh, réforme pour dimbale ndaw yi par rapport ak seen xëy. est-ce que tey jii nii mun ngeen natt bi mun ngeen ko féetoo foofu tamit si primo votant yi. bon en tout cas li ma la mën a wax daal Euh, li fi amoon mars. Ah. Ah, dafa révélé beaucoup de choses. dafa révélé carrément que vous étiez à trois. appui <laughs> moom non non non dafa dama ne dafa révélé bon man li ma jàpp lu mu révélé. <laughs> Uh-huh. Euh, la demande pressante en emploi pour les jeunes te état bi jën na ci ay jéego. te la ngeen si bu baax créer beaucoup d' emploi en tout cas teg un bon dispositif pour permettre jeunes yi ñu am emploi ñu ngi ci euh, phase d' urgence bi ñu ngi koy dérouler. Mm-hmm. mais sur le plan politique aussi. xale yi euh, xale yi dofuñu li mu wane aussi c'est que y a eu beaucoup de manipulation beaucoup d'intoxication beaucoup d'affabulation ay wax yu amul ñu teg ko ci euh, euh, sur le dos de de l'État loolu aussi bul jàpp ne nit ñi mën nañu xam Bachir. mais bu election jotee la leen war nañ ko def mais l'affaire de mois de du mois du mois de mars la ku nekk ak sa jàngat fi muy àtte nag mooy élection locale. mais mais mais Maïssa Euh, bu ñu waxtaanee rek dëgg bañ a naxante. Euh, ñu xool. Euh, naxante amu ci mois événement mois de mars yi. ñu ñu gis ne carrément tournée économique yi prise du président Macky Sall. bu ñu defee rek euh, focus si euh, mm-hmm. euh, zone bu mel ni Fouta. Mm-hmm. nga xam ne président de la république Macky Sall da doon wax sa que moom titre foncier am la moo ko téye si loxom mais ñu gis ne aussi am mouvement bu fa juddu Fouta Tampi. Mm-hmm. ñu gis ne ay brassards rouges yu xonk yu yu yu ëpp ñoo accueillir kii di président Macky Sall. bien vrai que effort yi nga xam ne autorité yu féetoo foofu wala sa les politiques qui étaient dans cette localité jéemoon nañ ko def pour pour barrer la route. à ces jeunes. Hmm. tey jii est-ce que mun ngeen wax euh, seen akulaay taala yaakaar ngeen ne jeunesse sénégalaise bi dina leen votel boo leen euh, bloqué wul seen ay inscription si kii yaakaar ngeen loolu bloqué wuñ benn inscription tey boo demee ci commission yi d'ailleurs ñoom opposition bi war nañ def effort parce que man commission yi ma visité yëpp en tout cas yu Fatick ak quelques Dakar ñoom ils sont même pas représentés ah wax rek plateau yi di wax rek mais gis nga processus électoral boo ah. bàyyi ba élection nañu dem mais ça c'est une révélation de taille hein? non mais c'est loolu moo am na ñu dem ci commission yi d'abord toog fa comme membre mais pour le moment lijjantewuñu loolu li ñu nekk mooy di nekk ci euh, ci télé yi ak rajo yi di wax di def ay accusations gratuites mhm. fi ñu dégg ñuy wax problème résidence yi mais attends résidence may wax rek ne pour qui changer zone d'habitation qui ça le concerne mais boo amee sa carte d'identité nekk primo votant da ngay dem defal sa kiw bopp tu n'as même pas besoin de voir le nez ou de loolu xoolal c'est un faux débat gis nga opposition bi Sénégal dafa am tradition électoral cest à ñu ngi ci suñu deuxième alternance il y a beaucoup d'acquis démocratiques yàgg nañu ubbi vraiment inscription nañu nañu nañu nañu ut ay argument préparer seen militants dem élection bëri que ñu jël diñu diñu di diñu diñu defal ay encore que fi ñu dégg coow fan la Mermoz Barthélémy moo fa nekk Cheikh Gueye attends

leen di yónni seen seen liggéey la bokk. mais non non mais boo xoolee boo xoolee ASP. Mhm. ASP warul def liggéey euh, de la police. Euh, ma may ko non liggéey police mais dama ne tey boo demee commissariat yi les ASP font un travail de soutien administratif sécuritaire à la police boo xoolee seen mission loolu moo fa nekk c'est-à-dire gis nga gars yi dañuy créer beaucoup d'amalgame commission yi préfet newu fa. parti politique yi ak ak ak ak ak des gens assermentés ñoom ñoo fa nekk. voilà donc loolu honnêtement njàpp. Hmm. gars yi nañu nañu préparé rek ñu bëri. ñu sëgg bëri ñu xool ku mën quoi. yaakaar nga ni ñu nay mën. bon ah on touche du bois mais depuis 2012 dañuy gagné te gëm naa ne politique publique yi ñuy développé pour askan wi pour ndaw ñi war nañ ko mën a sanctionner positivement. parce que hmm. nag euh, nekk ci biti di wax yomb na. mais yor ko di ko doxal moom stabilité. moo jafe ñu naw ko partout moo jafe. mais mais mais lenn moo jaaxal nit ki euh, Maïssa. Mhm. yéen membre euh, task force républicaine bi nga xam ne président de la république euh, daf koo teg. pour mhm. yéen ngeen ni tontu. Mhm. ku mel ni comme Ousmane Sonko ku mel ni Barthélémy Dias parce que dafa jàppoon ne carrément gars yi duñ koy défendre. mu teg benn euh, équipe am bu dëgër. Mm. mais euh, à chaque fois yéen boo leen di di tontu ku Sonko wala ñeneen ñi. da ngeen dem euh, par rapport ay débat yoo xam ne non scientifique doole leen koy tontu par rapport ak sujet yu mu interpellé parce que bu ñu sukkandikoo rek seen euh, communiqué bi nga xam ne def ngeen ko sur douze mm-hmm. euh, di déplorer comportement ñenn si ay kilifa yu féetoo aussi opposition bi da ngeen mel ni comme kuy clash kii di Ousmane Sonko parce que yéen ngi wax ne carrément des opposants en mal de popularité englués dans des difficultés à caractère moral et judiciaire versant dans la calomnie euh, avec des invités au blocage du processus euh, nga naan le souvenir des faux malades adeptes des massages thérapeutiques dans des salons douteux avec un tissu euh, épais de contre-vérité ainsi de suite dem ngeen sax ba naan carrément des hommes à la gâchette facile ainsi de suite ainsi de suite mi même ni comme yéen si débat de personnes yi ngeen gën a nekk si ay débat d'idées est-ce que foofu la leen askan bi di xaar quand même non mais est-ce que finalement doo leen dem. Hmm. Euh, muy mel comme euh, xeexi euh, jigéen quoi débat de Bordeaux Fontaine. non non non non du tout gis nga boo xoolee communiqué bi c'est vrai que. li nga wax noonu yëpp ñun ñoo ko wax. ah yéen a ko wax nii. tey loolu ngeen yàgg di wax parce que. non non Ousmane Sonko na leen fii par rapport ak euh, gestion Covid 19 bi indi ay euh, compara comparaison de chiffres yoo xam ne ministère de la santé bi joxe joxe na ko au lieu yéen ngeen indi démenti da ko traité de virus. non non non non du tout du tout cest dire <laughs> non non li mu wax ci euh, en tout cas information yi mu joxe ci wàllu santé ak ak ak ak Covid bi loolu. personnel de santé ministère ñoom ñoo ko démentir cest à loolu moom euh, c'était tellement sérieux ba l'État à travers ses démembrements en santé ñoom ñoo joxe les informations. non mais gisul benn démenti bu bu bu formel. si yéen da génn au au koy traité de virus. non non non non non non non euh, euh, ki ko traité de virus je pense que kenn la mais formellement loolu nekkul ci communiqué c'est-à-dire ñun tey li ñu jàpp. Hmm. mooy que ne tontu. boo xoolee le communiqué là ñëw nañ sur sur sur un débat de fond boo xoolee inondation yi. chiffres non débat de fond moom doo leen ci mës a ñëw. non non débat de personne ngeen ñëw moom et là ça pose problème dafay mel ni comme finalement yéen vous n'avez pas d'argument. on a fait pas beaucoup de communiqués de de conférences de presse sur le niveau de développement du Sénégal sur sur des problématiques euh, très importantes notamment ci Covid bi ci ci ci sur la dette. bi nga xamante ne le président Macky Sall moo ko yëkkati pour son effacement. Mm-hmm. on a parlé pas mal de choses ah. maintenant nag soo nekkee ay nit ñoo xamante ne jàpp nañ ne manipulation affabulation mooy seen seen seen seen force. ak réew moo xamante ne dañ gaaw a en tout cas wax loo xamante ne dañ koy capter dafa yomb il faut que nga weddi tuuma. loolu moom moo fi am mais li ñu wax fii. mais weddi tuuma kay mooy apporter des preuves scientifiques. Euh, mais mais. problème seen nee naa la yàgg nañu joxe ay ay kii kii scientifique li euh, ñoom ce qu'ils ont ñu ne ñun dañuy euh, bloquer le processus de délivrance en tout cas dañuy alourdir le processus de délivrance des des mais loolu amul tey boo demee ci commission yi boo soxlaa ñu jox la cest à xam nga aussi ñëw di di tuumal nit ki sans argument parce que da nga bëgg a repositionner waat au cœur du débat c' est en réalité c' xam nga li la wax noonu neexut a dégg peut être du leen neex mais moom mooy li am Ousmane Sonko gis nañ ko fi barki démb kenn xamul lu mu sol loolu lépp c' pour capter l' opinion xool leen maa ngi nii je suis mais mais non en fait non c'est en fait c'est de c'est de cela qu'il s'agit. mais tey même même mais Ousmane Sonko lu mu sol. waaw noonu dafay da dafay wane une fois de plus. son africanité. bon waaw zéro complexe bu muy doxee. parce que man je préfère voir un Ousmane Sonko mu sol suñu ay tissus africains que je vois un Maykor porter un costume bien vrai que c'est très beau sur toi. non non mais en fait moom da koy sol man je parle pas bon. li mu sol tenue bi traditionnelle bi d'accord naa loolu rafet la lu ñu war a euh, valoriser valoriser la même président Macky Sall gis nañ ko G8 G20 mu sol ay yére olof donc loolu moom ñun ñëpp dañu war a nekk véritablement des ambassadeurs mais dama ne ñun du ñun de opinion nationale ak les médias ñoo capté c'est-à-dire li mu sol ça c'est captif xool leen ma je suis maa ngi nii mon parti moo parti est en vie. mais Ousmane Sonko voilà, il n'a besoin de ah, dire mais, que je ah, parce que il est là. ça yéen xam ngeen carrément il non, est là. mais euh, bon en tout cas. sànq yaa ngi yaa ngi Ousmane léegi ñu wax par rapport ak. Euh, treize formations yi nga xam ne ñoo dolleeku. treize formations si Pastef mu nekk mbir boo xam ne mën ñu wax ne euh, dina yëngal bu baax yi nga xam ne moo nekk seen. coalition bi manipulation weesu loolu loolu mooy manipulation. Ah. bi gën a rëy actuellement ci réew mi ci en tout cas ci moyens yi. du treize formations ñoom ñoo ko non mais treize formations yoo xamante la ñoo la élection présidentielle en réalité. c'est-à-dire li mooy li ma la rek xam nga la. non non non si non bul wax loolu. non xoolal bi nga ko jàppale woon ci élection kii fusionné wu toon dugg ko ci biir mais euh, jàppale nañ ko dem nañu am nañu poids électoral. sa à dire mais est-ce que tey jii nii ku tiit nga ni wax. non euh, du tout non non non. parce boo leen gisee ku mel ni comme. Euh, non non Madieye Mbodj nga xam ne ku nekk xam na kan mooy. Madieye Mbodj ak le docteur Diallo Diop. nga xam ne mun nañu wax ne euh, moo fi représenté Cheikh Anta Diop waxuma ñu bees de. Euh, <laughs> voilà nga xam ne am na lutte bu baax. boo xam ne def nañ ko si par rapport ak waxuma waxuma ñu bees ci échiquier politique Sénégal. waxuma ñu bees ma ne leen les même personnes dugal google nga xool ils avaient soutenu Ousmane Sonko élection présidentielle gis nga loolu manipulation la. ah ko dem ngeen euh, mbir mi toll na leen foofu ba ngeen dugg google pour xool. non mais dañuy politique boo dee damay fusion man damay jëm a nii fusion seen doole fu mu toll est-ce que am nañ cas est-ce que am nañ ñam mais c'est des toog du dara seetlu ñun tey. des toog non attends xoolal euh, ñun nag kay ma wax la benn affaire bon c'est vrai que politique moom agitation la. il a réussi il a réussi son coup agité wane ne maa ngi fusionné loolu lépp pour recentrer son parti c'est c'est normal c'est légitime mais gis nga ñun machine électorale bu ne tekk la c'est-à-dire dañu huilé c'est-à-dire sunu sunu bërët xajul ci ci ñii quoi honnêtement élection yi nii mais ñun on contrôle presque plus de cinq cent cinq cent euh, quatre cent quatre euh, cent euh, presque quatre cent collectivités locales mais bu ñu xoolee carrément événement mars dernier yi am ak euh, mun nañu wax ne Ousmane Sonko mu loon ko wax sax si kàddoom pour euh, tooñ kii di président Macky Sall nekkoon na trois appuis di jéem a euh, redresser waat son image par rapport ak tournée économique yi voilà ñu gis ne carrément aussi lu toll ne si transformation politique kii neen ko nu koy waxee sax ànd neen ak moom muy annoncé une forte coalition une forte coalition politique tey jii nga xam ne yéen foofu euh, euh, si seen biir euh, Benno Bokk Yaakaar pour ne pas dire l'APR dispersion la si nit ñi gën a seetlu parce que gis neen sa président de la République mu ngi jéem sommet à ce que nit yi taire leur divergence wala sax taire leurs ambitions par rapport ak élection locale yi tey ji yéen na ngeen éclaté la nit ñi gën a gis ngeen ànd tey jii est-ce que nekkul yooyu yéen a tiit en ñun tiituñu may wax la ne yàgg nañu dem élection locale bi gis nga ñun tool yi à chaque dafay bari. mais 2022 ak ay année yu passé du benn de. Maysa du benn mais la machine. est damaa ragal rek ngeen yeewu yeewu boo xam ne après voilà. waaw yeewu brusque en tout cas jàppal ne ñun travail bi ñu def c'est un travail scientifique. te gëm naa ne li fi am mois de mars yaa ngi koy jëlee négativement mais jàppal ne sénégalais aussi yeewu nañ ci xam nit ñi ñooy ñen ensuite ñun on a apporté des solutions euh, nañ beaucoup de dispositifs. de financement d' emploi pour les jeunes donc li may bañ mooy nga jàpp ne c' est à notre défaveur xam nga tey. ah c' est à euh, votre défaveur. bon déjà événement mois de mars yi l' affaire Adji Sarr Ousmane Sonko. yi ñu ngi si ñu leen si takkal. tey jii mu mel ko comme bu fekkee da ngeen ko bëggoon takkal. finalement da ngeen ko gën a. Euh, def Sénégal yi gën ko bëgg. lu impact bi muy am ci Ousmane Sonko ou pas loolu moom élection présidentielle nga koy xam. ah bon waaye sincèrement. que ah moom du bokk. non non non maanaam. bu si day bokk nekk candidat foofu la ñuy xamee nit ñi est-ce que ils sont prêts à mettre au devant euh, du Sénégal quelqu'un qui a des antécédents voilà. ah yow yaa ngi koy jugé te juste jugé. non ma kenn de dama ne. yaa ngi koy jugé non non jugé wu ma de dama ne. élection présidentielle la ñuy xam ndax sénégalais yi ils sont prêts ou pas à à koo xamante ne dafa am des problèmes de justice loolu kay atuma. <laughs> léegi nag <laughs> uh-huh. euh, gis nga gis nga suñu coalition bi bon c'est vrai que euh, d'ailleurs le président n'a jamais dit à ce qu'on étouffe les ambitions. ah si non dane moom dane toog toog leen ma tànnal leen. Ah, cest dire non c'est-à-dire kum neex mën nga ne bëgg naa mais bu ñu demee ba egg ci foog ñu permettre la conférence des leaders quand même parce que un, un une coalition aussi grande munoo ko bàyyi mu dem en rang dispersé gis nga tey ñoom mu Dias yi wax ni yëpp. mais c'est parce que on a eu deux listes moo tax ñu toog oui même mu Sacré-Cœur on a eu de list moo tax moom mu dugg mais bu ñu nekkoon benn liste dañuy gagné c'est pareil pour beaucoup de communes léegi nag yooyu la ñuy passé boobu moo tax ñu ne nañ déglu en tout cas au maximum ñu jéem a am des listes consensuelles maintenant bu mënul am nag bon voilà ñu xool nu ñu def mais tant que c'est possible la coalition va essayer d'avoir